sebi nga tooy nga gépp wet bay nga mu ñor buum babat man nga dundal waa xarnu dundal noo di sañ njaboot woo dunu nee nu wàkk boot suturaal nu may nu mboot ñu leen amiin yéen yaay fekk waaye njorandaay nga ful ko boole kooki gaay di doomi maam Seynabu Njaay lamp bi oon ci xarnu bi mur i aayoor seen ngërëm sëriñ si yaa xorom bañ la gisul ne xeram fajal nga aajooy xarnu bi Cheikh yaa di am door sëriñ dim jawle bañ la dural ñu fal buur waajur a ne mu fal buur salam gi neex na xarnu bi wa saabixoon a yàllaay borom kum fa yekkoon e waaye gaay fi jekkoon ñu yóbbu mboote xarnu bi ñaref lewoon wodd na leen seddi na leen ruya gëmoon wama xarnu bi ña ko bëggoon seexal na leen ña ko bañoon xaddi woon neexal na leen ba xarnu bi Cheikh Bamba yaa di ñaloor andaama soobun sa boor soo doon weer koor mbaa gamoo xarnu bi fadanu ndaama yi daan na noon yi di nu daan jaggi nu mbëri bu ñu daan te def nu mbërë ci xarnu bi Cheikh Bamba yaa ma tub sëriñ yaa xóoti mbir yaa xereñ waane wi yaa raw am marañ tey gaale jàll xarnu bi sopp nu ay wa woke gaal nu yab sa marsandiisum aal yóbbu guuru Sénégal def nu mosin ci xarnu bi Cheikh Bamba yaa ma tub sëriñ Mbàkke bu soobe duutu soof seen xol yi wër na ni gëriif maam jaara tiim na xarnu bi si gën nga waa Mbàkke Bawol defal Mbàkke Kajoor yaa leen bewal penku Bawol yaa leen defal lu tax ñu siiw ci xarnu bi Mbàkke dimbal Mbàkke xewar ak Mbàkke baare kër sayar saa ñanka Bamba leen defar ba ñuy defar waa xarnu bi askanu kër ma maaram yaa tax ba waa du ñu gërëm bu ber këram bari dërëm daagur soo ci xarnu bi daaru salaam منا dari fi kulli zaman yaa ku weddi laajal xarnu bi yaa tax ñu dooni capital ni ruuñoo ki am nañ barke am alal ñoo gàddu mbooleem xarnu bi sa daaru yee di ku rag war na lay dagaan ku ñëw nga jox garab mu naan docteur yaa faj xarnu bi ragi xolog ragi yaram yaa koy ragal joxe garabam dara gi war nañ laa gërëm yaa wéral seen xarmu bi fekkoon nga réew mi defi a fekkoon nga ñëpp defi gool yaa tax ba ne nii na li bool yafal nga mbooleem xarmu bi fekkoon nga ñii defi lafañ ñii daanu far ba ni fëlañ ñii kun ñaan jabar mu bañ ñii mel man ci xarmu bi yaa dikk jàngi fi damoon jàngati mbir yi fi dangoon yëkkati ne gi su fa woon bañ mën a ànd xarmu bi amaa nga gaay amuloo woon xamal nga gaa yi xamuloon feeñal nga mbëri nëbbu woon dekkal nga ruuy xarnu bi sawaay du ñii waayi keneen sawaay du xacc jëm feneen desu la xam di gëm keneen sa diine doy na xarnu bi taxal nga ruuy dajaloo te woote woo te fitaloo te wate woo kuy falu islam nga moome xarnu bi xalaat nga ngir mi weex ku ci awan mujj na seex ci mus laa jàdda ka jeex bu yóbbu mboolem xarnu bi woo mat nga ruy jox borom saa nga juri seen borom Cheikh Bamba kenn du sa morom yaa mën a jàlle xarnu bi woo man nga ruy jox borom saa nga juri seen borom Cheikh Bamba kenn du sa morom yaa mën a jàlle bi alhamdulillah ina di sant rabbal alamin dooma di baay ki du keneen mën naa defar waa xarnu bi yow mi liggéeyal Moustapha bul fàtte am ni Moustapha ak doomi baayi Moustapha ñu amee boo di xarnu bi mën na xalifatul xadim fenn palaat ba mën na doom te ami xam ami ko mën naa defar waa xarnu bi noppee goreeg talan li joor la moome saalu ma joor ku laaj mu jox la lay sa mu te mus la gàndul yaa yara njool aminata yaa donna njool aminata Tuuba di sun madinata yaay weer wetim waa xarnu bi jooy te neexataan ne xarnu bi amoo ci maas da dala fii ba weesu faas yow lañ jébbal xarnu bi Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha raayam nga ne lu yaa ko yor yaa bi daw basar ngir naaru góor ak paso par ci xarnu bi mboolem si xaaru ak kibaar yaa tax ñu tabbi ci saxaar ba wàcc Tuuba ngeen jigaar noppal nga ci xarnu bi rubni ngi wala nangaani naani kawsar ak jinaan dootum tapaati siyaan jaajëf defar nga xarnu bi Cheikh Moustapha jumaa ji yaa ko taxawal yaa teemu naax saani yaral naa la fi yal nan ko matal amina war na xarnu bi yow la Souleymane xamaloon carrière ba do jaja desoon jumaa ja bëyti tabaxoon bu ngay defar waa xarnu bi Cheikh Moustapha dawda bambalay misaal baytil muqaddasi la naal uji boroomam bakka jamaal taw ba defar ko xarnu bi Cheikh Moustapha ndombay ngëneel yoon ca maam ya sotu ko ki ak ndaam nga boole ko ngëneeli daam rango ci xarnu bi muri i jox na la i daay tubaab yi jox la ay mi daay sultaan nga boole ko wilaay yaa mën a tàggar xarnu bi yal na ngay muurum murit te yàlla booy muurum marit bi xaadiril murit ndax yàlla naatal xarnu bi borom kasu la allah usul falil asim ku may nga ne desi la yeem Cheikh Fallu mooy Fallu Lamin turam wa doy na xarnu bi allah usul falil asim ku may nga neel de si la yem Fallu mooy Fallu Lamin turam wa doy na xarnu bi mooy doomu Samsun wa xamar Mbakke bu soobe duñ ko moo namp yaari meeni mbor mooy Bamba tey ci xarnu bi ci li di baayam lay royaat leerub cosaan nga day royaat ndey jaari xëyri musinaat moo doon mbooti xarnu bi mooy noobul islaam fi nun mbooleem sërif yi moo baay ba man na doom te amu na kersa xarnu bi dem na ba makkam julikaay aña siyaare ngeen ji baay te duul alal di jaay nawleem amul ci xarnu bi taalifi baaye may woyam moo doonu duusi xam-xamam moo naan ci géju ikamam si romba doy na xarnu bi yal na am li muy mébét ci nun am li ñuy mébét ci moom te yal na na mébét ñu gën a gam waa xarnu bi naan tag Lamin moom lañ ma sirul mosoon xar baax la feete bane goon baay baa ko lëm ci xarnu bi baatin ba jaaxana kajoor moo tax ñu leen ko biir soo ko gisee ma ngay bengeer ni kuy lu mat ci xarnu bi fa jaajo moo ca gën a gaaw lu boroomam mu ne waaw day fal di fali ci lu gaaw man naa ci xarnu bi day way te jànguloon te man xam du ca suruf mu man te man wolof jomal na mbooleem xarnu bi foofu na ca baayam yen bu tiis te nu ruur waroo tiis kuy rooti moo di dex gu bees ma man a mandal xarnu bi sañ-sañ bala doon na ca jagle ga jiitu nopp ju doom mbar mu ko suuru dadi loom meram xajul ci xarnu bi bi rijaali xam nañ dara bu ne jëlañ ñu nërëm nërëm de safi baam raamal ko na xarnu bi yal nañ ko may mbuuti lëmin fegal ko ay bépp noon ku dégg ñaan na ni amin ndax yàlla naatal xarnu bi Musaa kami seen werakaan mu leen di woy di leen dagaan tey sant tey tagaka ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi waykat yi muy ñaboone xiima wa de xadim gi damay murit di jaam di doom te gën a bon ci xarnu bi ngir Abdu Mbàkkeem soxna mbay ak maara meññeet ngoy mooy bàyyi sama nday ma di kenn ci xarnu bi sëy na bu ab sa njaay ak maara meññeen ji baay mooy yaay bàyyi sama yaay ma dambe yi ci xarnu bi man léebu naa leen kal leen way naa wala way na araan ngir bëgg ngeen xam Bamba yéen waa xarnu bi way na ko sun ramadan yàlla wàcce alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla defal ko xarnu bi julli na ci ngeen yàdd naan Musaa ñaan ko banu naan géwal si jaaxle war a ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi seetal ma si Ahmadu Ndumbe Mbàkke Seetal ma Seex ma Seex Amadu Bamba ko seexal soob ko ci yoonu barke Baay Seex Mudu Xabaan Baay Seex Abdurahmaan Baay Seex Abibu Mbàkke borom paas Seetal ma Seex Amadu Bamba ko seexal soob ko ci yoonu barke moo daa dundal muri ak Tijaan yee muraanul muri at ki jaan yee ay way baaxe di mooy mooy ñaan yee ma lay jéggalu sëriñ bi dana sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene